Aliou Diouf kargo ak Diamant Noir Aliou Diouf Cargo Diamant Noir ñu leen di xool ndeysaan ndax niin na ñoom niinuñu bu doon ay bu doon Aliou Diouf xool noon Diamant Noir moo leen wan ginnaaw Diamant Noir a leen wan ginnaaw Aliou Diouf Cargo moo leen wan kanam ndeysaan dimbali leen ñu ba seen combat bi bu mu yàgg dafa sedd Aliou Diouf Cargo Diamant Noir ci yàlla waroon naa dégg séeréer de li ñuy wax neex na Aliou Diouf Cargo Diamant Noir Aliou kargo Cargo Diamant Noir Diamant Noir wan leen ginnaaw Aliou wan leen kanam Aliou Diouf toj na nen tojul de eh, eh, moo ngi doog a yàq na cuuc Diamant Noir Aliou Diouf Cargo yàlla finalo yàlla Aliou Diouf Cargo Aline Diouf Cargo Diamant Noir Aliou Cargo ñoom ñaar ñoo ngay léewtoo Diamant Noir def tent Aliou Diouf Cargo Diamant Noir ñoo ngay tourner autour du pot Diamant Noir Aliou Cargo eh Aliou Diouf dugal na ku Diamant Noir Aliou dugal na coup Diamant Noir résisté na Aliou Diouf Cargo mbokk internet yi may seetaan neel dama liw dama sedd Diamant eh, Aliou Diouf dugalaat na coup waaye yow say loxo doo fayu yow eh, Diamant Noir fayul ali Diouf Cargo Diamant Noir Aliou Diouf a ngay dóor Diamant ne teg xaw ma dafa bëgg a jàpp xaw ma Aliou Diouf Noir Aliou Diouf Cargo Diamant Noir Aliou Diouf Cargo Diamant Noir bëri leen Aliou Diouf Cargo Diamant Noir Aliou Diouf Cargo dóor na jamaa noir ah li boo bëggee dee di nga wéqu ne ko boo bëggee dee dinga nga wéqu ah, eh, Aliou dóoraat na waaye dugg yeggul jëm naa jël tànk ba jamaa noir añ na ko añ na ko war na ko ndomb penalty lamb wër na ko ndomb rokos rokos un deux trois quatre et eh, cinq six sept huit neuf dix onze yëkkati na ko dalay yëkkati dalay buddi buddi dóor ci suuf jeex na jeex na maa la ko wax dafay jeex am na ko onze coups yu neex a neex a neex a neex neex a neex waaw